comme que da ngaa a fen lu nu wax nga ni nga ni yaa ko xam tax xamoo xamoo lu nu si nga mel ni ma yàlla ma si xool ni boo deelee saraxal te bañ di xawaare parce que seen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 da ngaa bëgg ñu wax la yéen kan ba nga defaat ko rek boo ko defee di moo génnaatee dinaa la indi indil sama tronçonneuse laa lay indil dinaa la def loo xamante ni li nga musuta yaakaar ne que ne jigéen dina la ko def ci àdduna da ngeen fuy da ngeen yabaate réew fuy seen xeesali bon yi seen kasawaay yow villageois bu taxawee jigéenu villageois bu sangu taxaw yow nga sangu nga taxaw boo laalul deew dara wala parfum kenn mënu kenn mënul toog sawet wet ngir xeesal bu bon bi ak li ngay dégager lakk nga sa yaram bi ba fu mu nekk ni der bi nga war a lakk sax ak i produit chimique sa amatoo ko doo miroo tubaab jegewoo métis doo bokkatoo ci nit ñu ñuul yi et tu te permets de de insulter les femmes villageois les gens villageois parler au nom des sénégalais venant des régions quelconques des sous-régions yow nga am éducation salopaar bi nga doon sal